التوفيق على sala Cheikh Abdou Samad yaayi doonay Cheikh Sidi Muxtaar jawri ni tool bi la tey sa mbay mi sell na Cheikh Abdou Samad baray Modu Lamin Mamad Lamin Bara Modu Lamin Mbàkke jaraway bar ku sopp Serigne Bara Mbàkke baray Modu Lamin Mamad Lamin Cheikh Abdou Samane Mbacké jara way ba ku bëgg Cheikh Sidi Mokhtar ba ray Modou Lamine Mamadou Lamine Bara Cheikh Samba Khaya ya jara magal ba Sëñ Bara ay sëriñam ba ray Lamine Mamadou Lamine Bara Sëñ Saliou Mbacké jara way ba ku sopp Serigne Saliou Mbacké ba ray Modou Lamine Mamadou Lamine borom jurul yaa jara maagal baari saxaaya nu yëkkati kàddu yoo xam ni mu ngi bàyyikoo ci sang bu tedd bii jëm ci mbokkam yu baax yi lu jiitu loolu nag nu jël nuyoo bu sell bu tedd di ci jiital Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal bu baax sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal a Cheikh Sidial Maxtaar Mbakke sunu borom dolli ci moom xéewal ak i leer sëriñ bi nag bi muy ñëw ànd naag doomam sëriñ Moustapha mii toog ànd ak jarbaatam sëriñ xaadim Diop ñu ànd ak cheikhu cheikh Modou Lamine ak cheikh Samba Xaya fekk fi nag ay bokk ay wëlëre ay xarit nuyoo boobu yëpp bu nu ko jëlee tënk ko dafay wàcc nag ci sunu woy wayjur wi nekk ci biir kër gi te mën naa wax ni moo waral cant gi tey bariwaa na ku tant di sant ña nga tudde cant ga masalan ay marin ak i parrain suñu ñëwut bu jàllee nga xarab kon cantoo cant gi amul marin amul parrain sëriñ bi tàmbale ci moom yem ci moom boo laajoon Serigne Saliou mii toog di sant Serigne Saliou si la bu tàmbalee ci maamam ba si ci baayam mu doy ko ak cant Serigne Saliou sa wayjur daf ma wax léegi ci biir ndekete yow sa maam juram moo lotise njaareem bu xaatal mu baarak déggal loolu sa maam juróom bu góor ndekete ci temps colonial la nekkoon siomètre ñu indi ko njaareem bi ñuy natt kër sëñ kër gu mag moo ko natt sa wàllu maamu jigéen sa bu góor nekk ndar ay teggin du nu may nu tudd tur waaye lenn ci njabootu sëriñ daan def su nawet di bëgg a jib mu dem ndar am ko mu fay seeti wax nañ ma tur wa ay teggin ndax lan mu lebal ko xaalis ba nawet jàll mu delloo ko yàlla dogal sa maam bu góor yem ca su ko doog kooka ak kilifa ga ñu xéewlu ba noppi kooka ni sëriñ bi ma dem te ñëw bi mu demee mu ñeewante sëriñ bi daal di koy laaj ne ko moom li wax lu ko waral sëriñ bi ni ko moom day daf may lebal nangam ci xaalis su nawet jàllee ma delloo ko ko teg ca dara samaam bu góor takk ndigam dellu si som bañ daan lebal kilifa googa mu jox ko duubal ba ni ko lebaloo lebaluma la ko lebal naa ko sëriñ Tuubaa soo ganee jamono ci famille bu toll noonu mel noonu nga dem ñu tuddale sëñ Saaliw nga làmb daj sa bopp daj yàlla daj sa cër nga ne damay sant sëñ Saaliw yow war ngaa sant su kenn ñëwul woon boo santee bu fi nit ñi jógee ñu lalli baas bi doo réccu parce que yàlla nga tàllal loxo waaye kii toog nag di kenn ci njabootu Cheikh Mat Lamine waaye di kenn ci njabootu Cheikh Sidi El Makhtar Mbacké ku wol mburu tudd dëkk Cheikh Sidi Makhtar ku tudd président Ablaye Sylla da nga ko tudd waaye ku tudd président Ablaye Sylla tudd Cheikh Sidi Maxtaar di nga tudd tudd Cheikh Abdou Samad mii toog ñaar ñoo xam ni sëriñ bee jàpp ci seen loxo kenn ku ci ne mën la boole naa la sa moroom ba wax wëlbati ko wax président Abdoulaye Sylla ni ko may sa bàyyi kon su gane jamono Cheikh Mamadou Lamine ñëwee jëf ja rëy na taxawaay ba mat na ci mat akok matal akok yaatal président Ablaye si la jëf ca lam ca jëf yebal la nga taxawaat ba guddi ga jeex booy sant Cheikh Abdou Samad dina ñëw ak ku mu am ak lu mu moo tax mu ngi nii toog waaye wax na ma kàddu yam solo ci biir kii as gor la dani ma wéruma xat na waaye su ma doon raam sax danaa ñëw ndax ñaar ma ne ko yan ñaar mu ne ma sama wayjur dama amul lu dul moom ma gis li mu seq ak président si la ba tax mu yëkkati ko yëkkati ma boolanu ak taxawaay bi nga xam ne rakam ju baax ji taxaw na ko sama bis bu dem démb ak sama wayjur wi ci biir muy docteur la su ma doon raam sax danaa ñëw kon sëñ Saliou na sa xel dal ndax nag yi ma wax léegi yëpp bu fekkee ay dégg kat a ngi fi te ñi ma dëgg te nangu ko ku ko dégg xam ne am nga wàccaay waaye am nga wàccuwaay nit nag dina am wàccaay te dina am wàccuwaay la koy waral na mu waaje daa baaxut waaye ku waaje wàccaay yu baax da nga am wàccuwaay yu baax looloo la dal waaye sa jur wi ci biir nag na ngeen xam ne lu jiin njaagata mooy njaag digganteem sëriñ Saliou leer na naññ ku xam xam nga ni sëriñ bi mas na ko woo ba mu ñëw mu ne ko docteur si la mu ne Mbàkke mu ne ko mbaa xam nga ne Touba bu doon jëmm donga yi ñooy xol bi nekkara laa jël donga yi def ko sama liggéey saaliwoo gi nii nee na jox na koy doom ba tàyyi mu naan man mii ba may feebar bi di ma faj xaw ma ak keneen ak keneen kon nag boo tàntee tàntal sëriñ saaliwu mu mel nii jëmm ji ñëw couleur tànt bi sant yàlla sant yàlla bu baax sëriñ bi nag daf maa wax ne ma na sa xel dal te nga wax nag président na xelam dal nee la mu waxan Mbàkke Kajoor rek moom lay waxaat fii bir na ko ni sëñ Sidi Maxtaar sooyut ci sëñ Baara biir na ko ni sëñ Baara sooyul ci yàlla te bir na ko ni moom mii sooyul ci sëñ Sidi Maxtaar te loolee mën na caa jaar sàkk ñaan yàlla yàlla nangul ko tàllal na loxo baayam mu tàllal loxo maamam mu tàllal loxo maamam Xaadim Rasuul président Abdoulaye Sylla li mu bëgg yàlla na ko am te bu ko amee yàlla na ko jig kon ngir bañ a guddal ndax sëriñ bi jataay bi yàgg na bu yàgg la bëggoon dem waaye ala kulli xaal daan ñu ko yëkkatil kàddu yi ngir ubbil ko jox ko nag moom mu jox jarbaatam bu baax bii sëriñ xaadim Diop mu jàllale nag ay kàddoom kon du maase déglu sëriñ xaadim Diop. kaddu yi nag. ne Cheikh Abdou Samad ci ñaar rekk la ko tënk mooy feddi la kóllëre ak nag santle la Serigne ci bisam bii kàddu yi sëñ Abdou samat yi nag ab nuyoo bu mu yëkkati di ko teg ci sunu way jur wii ci biir kër gi te ñépp gën a miin aw turam ci docteur Sylla ne muy wayjur nag di xarit ci ñëpp docteur nag amul fu muy yem ku mu dajeel def na la ni boppam def la ni mu def ak njabootam ne kon kooku nag sunu wayjur la ñun ñëpp sëriñ bi nee na nuyoom bii mu ngi ciy jiital sunu wayjur docteur si la ne mu ngi delluwaat kat doom ci biir baas bi di nuyu nag sëñ Saliou Sylla mii mi nga xam ni ne moo nu dajale nag fii nu toog tey di ci teg nag gan ñu tedd ñi muy jàkkaar lool mboole seen tàmbalee ci Cheikh Moustapha Mbacké mii di doom ci Cheikh Abdou samat waaye nag di xarit ci sëñ Saliou mii toog ne ñoom ñaar nag seen diggante di diggante bu rafet sëñ Moustapha mu ngi koy wax diggante moom ak sëñ Saliou muy diggante bu rafet ne looloo tax kon mu ngi yëkkati nuyoo bi di ko teg ci loxoom. di tëje nag ak tijjee ñi nga xam ne ñoo doon jàng xasida yi sëriñ bi nee na yéen la tëjee yéen la tijjee ne mu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen jaajëfal gannaaw nuyoo yi nag ne fii nag daf fee teew rek. ngir digganteem ak sëñ Saliou mii yàlla kat moo leen boole te boole yàllaa koy def ànd nag moom ay jikkoo koy def kon ñoom man naa wax ni ne kon kat seen ànd lu dëgg la ñoom liy firnde ji nag mooy mooy jotaayu sëñ Abdou bii man xam naa sëñ Abdou Samad nee man mii jottali ne moom mii di jarbaatam baatam di sëñ xaadim miin na ko waaye lii moom kenn xamu ko ci moom nag ne ay baas toog ñuy wax mësaam xanaa mbàkke kajoor ñàkk pexe la ne li muy def ci baas daal walla xew wu mu dem ñëw def farata dem la ca des mu ñaan njéggal waaye sëriñ Saaliw mii nag li wolof yi wax ni koo xamul noo koy def nam la defa tax ne xam naa loolu daal moo waral jotaay sëñ bii toog kon sëriñ Saliou sëñ Abdou Samad nee na ne mu ngi feddale kóllëre gi dox seen diggante yéen ñaar di tax tàllal loxoom nag di la ko jox bu baax ndax ànd bii ngeen ànd nag sëriñ Tuubaa rekk a tax nee na moom jotaayam fii sa jëmm ji waral na ko waaye jëmmi sa jur wii ci kër gi it waral na ko waaye jëmmi sa mag nag le président Ablaye Sylla ne kooku ko waral na ko ndax kenn ku ne xam nga ni président Ablaye Sylla sëñ Xaadim nee na ci yoon wi rek mu ngi ciy waxtaan ak sëriñ bi moom de ne président si la jiitalul kenn ci àdduna teg ca sëñ Sidi Maxtaar ne am na kilifa gum ci doon waxal bërki dem rek kilifa ga naa ko ne mu ni ko yéen waa kër Cheikh Sidi Maxtaar lu président Ablaye Sylla nekk rek war ngeen caa nekk kooka kat mën naa wax ni jaambur la waaye dafa gis nag taxawaay bu mat rek nee kon kat loolu lu am firnde la man na ni président Ablaye Sylla mboolem diir bi nga xam ne seex Sidi El mu ngi fi liggéey ba mu yëkkati ngir Serigne Touba ñoom ñaar ñoo koy ànd te nag loo muy def lépp ci sutura la koy def ne sëñ xaadim mii di jarbaat ci sëñ samat mii toog wax na ne man naa seede ni lim jëflanteeg sëriñ bi lu yaatu la nee ak gisanteeg moom moom mii nag ñaari yoon ne sëñ Cheikh samat Mbakke mii moo ko waral ndax lim daan jëflanteeg sëriñ bi rek sutura rek la ko daan defe man mii xam naa ci dara déedéet la may yàgg yàgg ca kër ga mosuma ko teg bët te dafa daan ñëw loola yépp sutura moo ko waral kon kooka digganteem ak Cheikh Sidel Maxtaar sëriñ bi nee na sëñ Sidi Maxtaar rek lañ koy bàyyeel ginnaaw bu mu fi jógee mu fedd li loola mooy fii sëriñ bi ne tey ci barabam bii boo fa demee loo fay xeemem rek mu nga fa te moo ko fa def bu sa xol seddee ca liggéey ba ab Ablaye la kon président si la nee mën naa ñoo wax ni président sëñ Sidi maxtar la nee loolu kat mbooloo mépp mën nañ koo seede nee li muy wax rek déet li muy wax ku ko dégg dooni kii li muy wax du dëgg ndax boo xoolee gis ko boo lambee daj ko nee jëf ju am la kon sëriñ bi nee na fii moom ab jataayam la fu mu war a teew la nee Serigne Saliou sëriñ Samat nee na lépp loo ne yow nee lépp loo xam ne magam ji président Ablaye Sylla nekk na ca nee saa yoo leen gëstoo di ngeen ko gis fii kat dañ fee ñëw rek dafee ñëw rek ngir sant nag Serigne Saliou Mbacké suñu jàmbaar ja ne bis bi yow Serigne Saliou Sylla loolu nga woote kon kat dañuy daal di gàttal kàddu yi te loola di la ñaanal nag bis bii ngay defal Serigne Saliou ne yàlla na nga ko yàgg def da nga daje ceeg ngërëmul Serigne bi ndax Serigne Saliou kat ñépp ko amal njukkeel lu toll ni tàntal ko di ko sant. ne boo taxawalan bisu leneen it. nee dana gën a yaatal wax ji ca loola kon sëriñ bi nee mu ngi feddale kóllëreem di gërëm di sant te nag di la jot li nuyoo xalifaam magam baayam Cheikh Moustapha xalifa Cheikh Sidal Maxtaar xalifa Cheikh Mad Lamine nee mën naa wax ni sa mag yow président Ablaye Sylla nee ñoom seere nañ ñi ni mu jàppe woon Serigne Sidi Maxtaar rek noonu la jàppe Cheikh Moustapha al Karim ne kon sëñ bi kat nee na mu ngi lay seedeel loolu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ne bi mu ko fekkee ci baas bi kàddu yii sëriñ Xaadim wax léegi sëñ Samat ku ne xam na ni ku ñàkk jot la koo xam ni kenn xamewu ko toogaay bu yàgg ci baas waaye ki ko jar muy Serigne Saliou mii ne xam na ni diggam ak Cheikh Abdou Samad ne mën naa wax ni sax ca magam la waaye moom mii sëñ Saliou yëngatuy àdduna benn bu ko ci taxe jóg yombul kon bu jógee Serigne Saliou rek ko ak bis bi mu woote ak diggam ak président Ablaye la ak diggam ak président Ablaye Sylla moom nag sàmm Cheikh Samba. nee dafa santaat bu baax ndax kër gii nu ne sunu waay jur ne ci biir nee man naa wax ni moom docteur si laa ko yar boo duggee ca biroom bee la tiim foto ya ko tiim nee moom moom la nee da doon jàpp ci loxoom nu ànd dem ci jumaa ji kon yàgg nan kon sëñ Saaliw mii sunu rakk la sunu xarit la sunu soppe la waaye ndok ndok bi nga xamee fekk nañ fi suñu sëriñ ndax moom mii sayu basi la wu sëppee fu ñu ko yëkkati dara des fa moom bi mu duggee fii lanu sant yàlla bi nuy ñëw yéene woon nan wax dëgg yàlla bu nu ñëwee gis sëñ saaliw mi bi nu gisee sëriñ bi nag sunu xol dafa sedd ma ànd ak sëñ xaadim mii ku ne xam na ni Cheikh Abdou Samane mii toog di Cheikh Sidi Muxtaar di Cheikh Sidi Muxtaar bi mu fiy nekk bi mu fiy nekk waxtu wu ne waxtu wu ne boo gisee sëñ du Samad da nga naan faju na Mbàkke yàlla na nga gudd fan yàlla na nga àggale nun nag say jaam rek lan sa alali waajur rek lan sañ nga noo jàpp takkanub sareet def na lu la neex saalal rek lan ndax bu nu génnee lu nu waay topp sëñ baara rek nu war ko jox ndax nag teen bu nu naanee amut sëñ baara xamut sëñ baara la këllub sëñ baara la te sëñ Sidi Maxtaar dimbali leen ci dundam ba nu yëg ko Cheikh Moustapha mi fi ne moom la ñuy siyaare ndax lim nu defal waaye yow boo toogee ak sëñ baara yaay sëñ baara ci ñoom di sëñ Sidi Maxtaar ci nun di sëñ Moustapha ci nun yàlla na nga gudd fan ku fi teew xamal ni cant gi nga doon sant Serigne Saliou Serigne Saliou nangu na ko ndax moom mi toog jër sëriñ nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Saliou nee na ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ne mu ngi jiital ci nuyo bi sunu sang bi toog fii di sëriñ Abdou Samad Mbakke ne mu ngi ci toftal mbokki taalibe yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw mboole seen ci bis bi sëriñ Saliou nee na dafay bañ a lim bañ a matal waaye dafay tënk nuyoo bi ci mbokki taalibe yi toog ak mbokki soxna yee nga xam ni mook ñoom ñoo seq liggéey bi te waxtu wu geesoo gis leen ñu di ko jàppale kon jigéen ñi yéen yéen a moom nuyoo boobu yéen tamit. di sant di nag sama mbokki kuréelkat yi. nee mu ngi nuyu aka sant ak a ndokkeel mbokkam yi nga xam ni ñoo taaral bis bi te mooy mbokki kuréelkat yi nga xam ni ñoo doon yëkkati léegi xasida yi. daanaka bi ñuy àndee ci bis beeg léegi toll na ci ñaar fukki toll ci fukki ak juróom. nee ñoom ñii toog doon yëkkati xasida yi léegi bi mu àndeek ñoom ci bis bi ak léegi toll na ci fukki at ak juróom. ne mooy bi nga xam ni Serigne Saliou Mbacke dëddu na àdduna nee boobu ba léegi ñu ngi màggal bis bi di ci ànd ak ñoom ne ñuy ay bokki taalibe nag yoo xam ni yu passeefu lañ ne yéen day mu ngi leen di ñaanal rek fu ngeen bëgg a yegg rek yàlla saa borom yeggale leen fa di ñaan nag ci bis bii nuñ ànd ñaanal nag président Ablaye Sylla yàlla saa borom defal ko tawféex ba nga xam ne li nga xam ne mu ngi koy yóotu mu am ci ndam lu kawe njortam ndax bu amee ndam ngëneelul Sénégal la waaye ngëneelu yoonu murit la nee di siyaar bu baax a baax nee sëriñam bi toog Cheikh Abdou Samad Mbacké nga xam ni lépp am la wax dëgg yàlla ne kóllëre gu sincère gu sax dakk moom la seq sëriñ bi ne dafa jàppe sëriñ bi comme ku mu bokkal ndey ak baay ne muy léppam nag ne Cheikh Abdou Samad sëñ Saliou Sylla nee na mu ngi lay ñaan nga ñaanal nu bëgg-bëgg bi benn la mooy le président Ablaye Sylla yàlla sa defal ko tawféex ndax tawféexam mooy tawféexi yoon wi mooy tawféexi yoonu murit mooy tawféexi waa kër sëriñ Baara ne sëñ Abdou Samad kon sëñ Saliou nee na mu ngi lay ñaan nga ñaanal nu ci bis bii président Ablaye Sylla daal di am ndam incha allahu rabbi ne kàddoom nag da koy gàttal ndax sa toogaay bu yàgg. ne yërëm na la ci toogaay bi ndax gis na ne metti na yàgg na eh, ne ñu ngi lay gën a tàllaat suma loxo rek di la gën a delloo suñu bopp nga ñaanal nu xam nanu ni kat balay sa boo ñaanee rek lépp sotti wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi la na sa xel dal mboolem ku ma sa laaj réew mii ba ma xàmmeeg léegi wala yéen ñi ba ngeen xàmmeeg léegi nam ko laaje bokkul ak ni ko président Ablaye si la laaje ñu ko doon laaj dañuy indi cin teg ñu indi leen kenn ku ne seenu mat su ma yekkee su ma toggee lekk ba regg yekkal leen loola fi aman ndaka jekk déglu leen li may wax bu baax nag am xel a koy dégg président Ablaye si la nag loolu dalu ko dafa dem liggéeyi ba yàlla dimbali ko mu yor wërsëgam woo xam ne man na cee dund ba génn àdduna mook ak njabootam ak i bokkam mu xool réew mi mu metti mocc falam jàppoon ñëw taaj booleem ni togg naa ko ba mu ñor yéen indi leen seen bool nu boole buñ boolee lekkalante kenn ku na lekk ba suur noonu la laaj réew mi na ci nit ñi bàyyi xel bu baax kooku kat su jotee li muy wut barke borom Tuubaa Mbakke xaw ma kenn waaye ndóol moom dana fi jeex ndax li mu yor bu fekkee ne denn dund ko ñor mën na cee dund kuy dégg xam nga loolu waaye xool na ni réew mi sonn nañ te nax yi metti na te ñu ngi nuy bëgg a rey kon booli la taaj ku lekk mu lekk ku lekkul mu lekk lekk na ba noppi nag nan fexe ba nag nun ñii sunu bool sunu mat yi nga xam ne yoroon nan ko di ko joxe ñi nga xam ne dañ ñoo waxoon ni ñëw leen su ma taalee lekk ba rek yekkal leen bokku da kaay leen taaj naa andi leen li ngeen yor nu bokk lekk loola président Abdoulaye Sylla wax nan ko ñaanal te jàppale ko wasalaamaaleykum wa